yow daa ñëw yor ko amoo looy def lu taxaw ci ngay def naan da ngay wax ak ay góob waaye boo ñëwee ci kër yaa ngi ah? xam nga fu mu jëm. fu mu jëm. gisoo tànk tànk li xale yi wane bi ñuy reer. yow léegi lu xale yi wane si lu ñuy reer yow loolu nga baasal fi mu ne nii. loolu laa baasal benn eh eh buntu ci buntu kër gi jaaral nii

te man loolu xaw ma kañ la mais xam naa ni sorewul a kër gi. papa. si weeru koor lañ ne xale yi dañuy sos rek waaye dëgg ba nga duggee ci biir kooku noonu bokkandoo la Penda Foto ñëw na ba fii tegal ma lépp nu mu demee Penda mii oh. deful dara. bàyyi ko mu toogee ci biti ba ngeen duggee. ki taxawaloon nag penda ak bi ñëw na ci kër gi expliqué ma lépp nu mu demee daan nag moom sax suñu teg ma laajte moom ak càkk ñoo dem kompaloo kooku kooku ñëw ci kër gi pour photo euh, kii penda mi ñëw na fii léegi yow nga bëgg a jël penda ak bagage yi guddi gii si weeru koor gi ñëpp suñu dëkkandoo yi ñu ne man maa ko def coow li mamu ma penda mi deful dara xale la dafa juum rek xëy na foofu da koo romb ko mu taxaw moom xale yi foto ko. daam daam. Ibrahima. ñëwal. toogal. waxal ma dégg. laaj ma ne. ma ne daam. mii moom ak Thiam. ñoo teg dil boobu pour photo euh, seen tànk waaye ñëw na ba fii fekk suñu fu ñu doon dogoo bu ma ko bas fekk nañ fii fu ñu doon dogoo wax ma expliqué ma lépp A ba Z ma ko noonu la demee mu ne waa ndog bi sax mënuñu ko dogoo dama ko dugal ci biir moom mi moo ko def. saa wax dëgg la ko dund. dama ci dara. léegi lool. sa yaay li mu wax dëgg la wala du dëgg. dëgg la la réponse oui non. dëgg la waaw. dama ci dara. mën ngaa ko ci biir ma ñu wala ko teg. ndax caal lépp caal la. caal moom moom moom moom tëgg yëpp. yow bu ma fi jógee woon doo téye kër gi. non non ma fi jógee woon doo téye kër gi. kon yow managance yi yëpp yëpp yëpp yow yaa ko def ngir la kii sa wutu te la mën a sax lu jëm rakkam la tey jii yow naroon ngaa taxaw su weeru koor bi ma fase ko si erreur boo xam ne ci yow la jóge ci erreur surtout weer koor bi a. bàyyi maa wax lépp caat la ma ko jëm ba doxoo jënd jàpp la. mu la. ok mi ngi nii la. caat. caat. si biir. tëjal sa gémmiñ. caat toog la. kii du noppi. ca ca dafa am lu ma sa tànta mi explique ci loo xam ne yow ak daam yi yéen a ko def gis nga seen tànta ni mu taxawee nii ak ay bagaasam dama ko naroon a delloo mu ñibbi seen kër yaay daam ni jàpp si expliqué ma loo xam ne yéen yéen a ko nas léegi daam confirmé na loolu moom am na comme que yéen ñaar yéen a ko defandoo yow laay déglu sa kàddu c'est vrai ou c'est faux diil bu ngeen teg la wala du du diil bu ngeen teg bu ngeen teg léegi yow laay déglu ñoo mm-hmm. faroon. Mm-hmm. waaye yow Thiat yow mënul tëj sa gémmiñ gi wax bu baax ñu dégg la yow dañu ñoo bëgg a fonto. waaw man damaa dama daan ñëw fii pour Lido. Mm-hmm. mooy sama tànn ñu may accueillir si kër gi di ma pour ma xatal. ah. su ma ñëwee gis suñu Lido ni may toogee ak daan du bëgg daal ni toogee am. moo tax ma ne ko sa tànk bi foo ñu teg benn diw. Mhm. pour génn ko kër ga mhm. nga mën a am pour nga mën a nekk si jàmm. Mhm. léegi ma ne ko am na sama benn xarit boo xamante ni naa ko boole moom pour doxaan ko. waaye suñu doy bu jël koo foto. suñu ñëwee tegal ko tontu. boobaa mu fase ko. yow noppil ay xale yu tuuti demagoo leen fenn ngeen fekk ay magum jëmm yi sëy sëy ngeen naa da ngeen koy tas tasoo leen seen sëyu nday yi di tas seen sëyu keneen. eh dimbali ma laaj ma la yow moom sax su nga teg ma gàcce sa bët yi ko looy. moom mooy toog yéen ngeen dem. fu ñu jëm fu ñu jëm ñoom. waaw ah, man de moo jëm baaxul daan ndogu si rek. Eh, yow ndogu si dakk na yow ndogu dakk na kii bu demee fooy ndogu. xanaa ngay dem seen kër. yaa ngi naan démb de fii laay toog fa laay jëm. yow dañu ko dem yow mii. démb fii laay toog dem ak jàmm. Thiam mën ngaa jëm dem dama la doon rek jàmm. waaw déedéet li mu daan day rek ay ginaar moom dina mën a def. dama bëgg tey gis yàlla de. nga dellu ci lambay bi comme que saytaane nga fi nekk fumiste. waaw maa xamal leen kon tey lañu ne. mooy tere lekk ginaar daal la gis. fii rek dama la. seen kër doomu. yow jëlee kër ga dellu ci biir. man démb de.

xam nga ni matuñu moo tax ñu def lii ñu def dañoo juum baal leen daam mii sa taaw bu góor boo ko génnee génne nga sa àll ba yeboon nag nga xalaat bu baax maa ngi egg ah, si biir.